Sénégal 4 TV yow yakum. ko ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàttee activé cloche de notification bi de ngir bañ a tardé ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage mais sëriñ bi tey si tey li nga xam ne euh, jot nga ko waxtaane ak ñun lépp rek jëm ci wàllu téere boobu. Hmm. terewul ba léegi ni ñu gis la ngay yëngu ci wàllu sunguf ak ay reen. ndax sunguf si ak reen si dafa man loo xamante ni téere bi mënu ko wala dafa am loo xamante ni ci téere bi lañ ko war a def ak ci leneen loo xamante ni ci sunguf ak reen lañ ko war a def. déedéet du loolu sax waaye xam nga alxuraan. Hmm. alxuraan maanaam mook sunguf ak reen ñoo ànd. Hmm. xam nga mën naa ne ñi xamul rek ñoo leen di ñoo leen di wutale waaye ñoo ànd mm-hmm. ñoo ànd mm-hmm. ndax eh, damay faral di ko leeral dama ne mm-hmm. yonent bu ci nekk cent vingt quatre mille prophètes la yonent bu ci nekk suñ borom jox na la garab goo xam ne dalaa xamal secret ba xam comme alxuraan ak sunguf ak reer mënuñoo wute ba ci fi mu ne nii Fatiha am na ñu koy bind ju bari di ko def saafara waaye am na ñaari reen yoo xam ne buñ ko boolee nag moom luñ luñ ci bëgg rek am ko ci ndax ñaari yooyu ñooy ay garabam. ñooy waaw li ma lay wax it la yonent bu ci nekk dafa am garab goo xam ne. Mhm. moom la suñ borom jox. Mhm. dama la ciy jox ñetti exemple rek. Mhm. ku ci mel ni yonent yàlla Iisaa suñ borom da koy joxoon rek garabu lingom limo waaw yalla insa ci histoire mhm. ñepp ñëpp xam nañ ne ci ci garabu lingom gi la daan tok mhm. te fim ne ni li tax sax ba man suma jele lingom ko mhm. yow say lor daqé waaw loolu lu ndax yonente yalla insa da daan romb neew yi di wax ak pour maanaam pouvoir bi mu amoon moo may garab gi loolu loolu garab euh, loolu moom moo ko mën mm-hmm. lingo ma ko mën ak garabu daqaar te garabu daqaar ñoom xam nañ ne garabu jënde la mm-hmm. ñaar yooyu ñoo ko mën wala bu amee yeneen ñaar yooyu ñoo ci ñoo laa ci mën a lim ñoo ci ëpp pouvoir mm-hmm. ba tax na fi mu ne nii nit ku liggéey jàpp sax boo jëlee lu ma téeméeri xobi lingo hmm. bu si nekk nga bind si allah sangoo ko liggéey bu mën a ne sa yaram dina dañ hmm. ndax baatin bee tax hmm. waaw ku ci mel ni it yonente yàlla Muusa moom it am na garab guñ ko joxoon yonente yàlla Nuux am na garab guñ ko joxoon ndax yonente yàlla Nuux moom lañ joxoon garabu sawat waraxatu Nuux mooy sawat warxatu Moussa mooy laurier ñoo nag lañ toppate yonente yi ku ci nekk mhm. am nga se boo xam ne garab garab googu secret lañ la jox waaw kon nag alxuraan ak sunguf ak reen mënuñoo mënuñoo taqali ko mhm. mën naa ne ñoo ànd mhm. xëy na nag am na ñu koy bëgg a séparer bëgg ko def ñaar waaye du ñaar benn la rek dëgg la gaa rawaan yi daw ci alxuraan bokkul ak rawaan yi daw ci sungu ci garab yi waaye nag teewul ne garab ba léegi ba léegi garab gu mën a doon boo ko daggee ni nga ko war a daggee utiliser ni utiliser ko ni nga ko war a utiliser am ci quantité bi nga soxla quantité bi nga ci war a def nga so bi nga ci war a def nga am ko ci def ko ni nga ko war a defee loo ci def mu sotti muy faj comme lu ci mel ni jàngoro yi ñuy dégg yëpp mm-hmm. bu ci nekk am na garab gu koy faj wa ilaa ñu boole ñetti garab ak ñeent ñu mën koo faj waaw allah ci leeral bi waaye defe naa ni bu ma tuddee wàllu sunguf mm-hmm. te te te xuusuma ak yow ci ponk boobu mbokk yi toog di seetaan xëy na mën nañu maa mere mm-hmm. euh, rawatina li nga xamante ni jot na ñoo ñam sa loxo ba noppi noonu laa koy waxee yàlla dafa def euh, ci xëy na sunu gëstu ak sunu daje yi ñuy daje ak borom xam-xam yi yaatu Mm. mais secret bi ñu gis nga di ko liggéey ci wàllu sunguf jëm ci sunguf bi ñuy wax sungufu ngóora mm-hmm. euh, dèjà ñi nga xamante ne nii jot nañu ko essayé yi fi mu toll nii sax daanaka ñoom ñoo indil ay nit yoo ne nii dañuy dañ dañuy ñëw ci yow ah, di mm-hmm. ko sàkku ngir am ko mm-hmm. ndax mën nga ñëw leeralal secret boobu lan la sunguf bi nga koy defaree sunguf lan la waaw xam nga loolu maanaam du doon lu ñu mën a wax sunguf yi ci télé du doon lu ñu mën a wax waaye liñ ci mën a leeral nit ñi mooy maanaam nit fekk xamoo jàngoroom mënoo koo faj fekk xamoo it moom lim manqué mënoo koo faj am nga bokkuñu dafa am koo xam ne faiblesse la am maanaam daa wàññeeku am ki nga xam ne nag wàññeekuwul moom dafa tële carrément am ki nga xam ne moom wàññeekuwul tëlewul hmm. envie moo koy dikka maanaam yenn saa yi day am envie bu amee envie bi moom mën naa nekk ak jabaram normal hmm. waaye bu amul envie bi moom mooy énergie day manqué énergie moom hmm. maanaam tey bu nekkee jabaram tey hmm. den toog ay fani fani fani fani fan énergie boobu doo ko ñëwaat bu dee waaw bu dee kooku nag da nga koy jox garabu spécial bu dee ki es ki maanaam carrément da nga koy jox garabu spécial bu dee ñu takk xala danga koy jox garab spécial loolu ay sangat yuñ koy defal la ndax xala liggéey la rek liggéey buñ def nit la rek bu dañee dañ ñoom ñeenti ñëpp ku ci nekk bokkul ak sa morom say mbir ku ci nekk ak garab biñ lay biñ lay liyee waaye daal dinaa leen ci baaxee lu ndaw loo xam ne baaxul te nit ñi ñu ngi koy def bis bu nekk bokk na ci liy wàññi góor mooy lekk lu ci mel ni lekk yàpp wu tàng teg ci ndox mu sedd rek tëdd. Ah, waaw waaye xam nga gis nga fi mu ne nii. <laughs> Mhm. seetlu li lay wax naar yi. Mhm. wala boog tubaab yi. Mhm. fi mu ne nii dangay gis Sénégal ku fi ne ne day noos. Ah. jënd ginaaram xam nga yàpp dafa tàng. yàpp day day tàngaay. Ah. nga toog xéwlu ba pare. jël boisson bu sedd guy teg ci boo ko ci degee maanaam fi yàpp wi di taxaw loolu day ñëw rek tegu ci kaw mu ngi mel ni fi ne nii kaasu ataaya nga def ci ndox mu tàng jël ndox mu sedd defaat ci nu muy def day toj hmm. loolu nag ku ko def tëdd boo tëddee mën naa yàq sa biir ñu hmm. si bëri yooyu mën na leen indil infection mën na leen indil yeneen ak yeneen ak yeneen mën nay wàññi seen doole te duñ ko xam waaye yooyu yëpp bu ci bu mu ci mënti doon am nañ ci garab yoo xam ne buñ la ko joxee moom garab yee lay faj waaye ñun du ñoo lay faj xanaa nga bañ koo def niñ la ko waxee waaye mbiru ngóor moom nga ne dangaa manqué kàttan wala yu demee noonu ñu jox la ko une semaine ngay naan suba ak ngoon boo demee ba mat une semaine moom moom kenn waxatu ko moom xam nga mën maanaam yow garab yi nga xamante ne yaa ngi koy joxe ko ak yi nga xam ne mënees na koo tuddee ci tubaab ay produits aphrodisiaques nga xam ne jamono guddi bi nga ko naanee ah, da ngay sa bopp mais bii traitement lay doon nga koy naan pendant une semaine avant que nga jëlaat sa forme. waaw bu dee yow maanaam traitement bi nga bëgg. Hmm. dafa am nuñ la koy defarale bu dee nag danga nga bëgg soo ko naanee tey tey tey mu yëngu tey tey tey. Hmm. dose bi lañ lay yokkal rek. Hmm. waaye xam nga am na noo xam ne boo ko joxee nit. ne ko pour une semaine la su koy naan noonu semaine boobu mën naa dem ba indil koy jafe-jafe moo tax lu ci nekk dañ koy limité waaw bu dee maanaam koo xam ne traitement bi la bëgg dafa am beneen garab buñ ciy yokk bu dee nag dafa bëgg loo xam ne ngir tey la wala ñaari fan wala benn fan loolu it mën nañ koo ko defal waaw effectivement euh, macha allah ci kàddu yu am solo yi defe naa ni mbokk yi nga xamante kàddu yi nga xamante ne nii Serigne Abdoulaye Seck daal dina koy yëkkati euh, ma fàttaliwaat rek ne seen émission ëttu xam-xam la ñu doxantu ko fii ci diwaanu Kër Mbaye Fall euh, plus précisément fii nga xam ne moom la ñuy wax rue 10 sang bi am yoo xam ne ne fi mu toll nii mi ngi bëgg a nekk phénomène ci àdduna warngal kàpp te daanaka bi ñu ko gëjee gis ci àdduna wala sax li ngi ko daan faral di gis bëriwul léegi ñu mel dafa commencé nekk phénomène léegi. Hmm. mooy youtubeur yeeg ak ñeneen ñi nga xamante ni sax dañu leen di interroger wala yu ni mel ñu dem ba am sañ-sañ yi taxaw ci internet wala ci télévision di. Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29. Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàtte activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi ci nekk et maintenant bon visionnage.